précis euh, di nuyu Sénégal yëpp di nuyu àddina ji euh, man Ayib Daffé mandataire du candidat Ousmane Sonko maa ñëwoon tey déposé caution wu candidat Ousmane Sonko 30 millions yi. donc déposé naa ko léegi euh, jox nañ ñu quittance bi donc quittance u caisse de dépôt et consignation nag daa bokk ci dossier de candidature bu ñuy déposé conseil constitutionnel. donc di yëgal sénégalais yeeg citoyens yi que Ousmane Sonko candidat la te incha allah à partir du 11 décembre dina déposer dossier de candidature am yëpp euh, comme yeneen candidat yëpp incha allah donc euh, ñoo ngi jaajëfal ñëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf